ak eh, ñaar ci weeru août gi ñu eh, nekk eh, ñoom nag dinañ jóge foofee ca Maroc ëllëg ak jàmm lay doon daal di koy jaarale ci suuf si lay doon ngir daal di yegg si eh, ca Ross bu Saint-Louis bu Sénégal ca ginnaaw ëllëg maanaam àllarba lay doon juróom nag ci ñoom dañ leen hospitalisé woon eh, foofee nga xamante ne moo di ca Daxla ba tey ji ñoom eh, ñu ngi foofu ginnaaw bi ma la nuyoo ba noppi Ndeye Fatou ci li nga xamante ne jot nañ ko dégg ci situation bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci ñi doon dem ci gaal gi te ñàkk ci seen bakkan ba seen néew sax mënuñu leen indi foofu lañ leen ngeen euh, daal di mujjee denc euh, ban jàngat ngay def ba tey ci situation bi. Fatima maa ngi lay fay d'abord nañu tenir un langage de vérité. Mhm. Euh, ci kanamu population yi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk Fass Boye mbir mi mooy du koor yëpp ñoo teer. am na ñoo xam ne ci biir ndox mi lañ leen sànni nañ wax loolu ñi nga xam ne ñooy famille yi certes nag c'est traumatisant ñu wax la ne la sa mbokk loru na ba ñu sànni ko ci biir ndox bi xëy na être loolu la ñu bëgg a gérer psychologiquement famille yi nan lañ koy war a mën a accueillir moo tax xëy na ñu ne rapatriement bi du mën a nekk que corps yi dañu nekk en état de décomposition wala mënuñu leen daal indi ba fii mais nag nañu wax ne du corps yëpp ñoo teer am na ci yoo xamante ne ci biir ndox mi la diig et c'est c'est mm. parce que boo xoolee face booy li fa xew ndox dëgg yàlla man de yéem na ma dëkk jël benn bés di ko def dëj muy li fa am démb. Mhm. journée de dëj la woon ci dëkk. mais loolu quelle tristesse fatiment mhm. ala suñuy autorité xam nga ñu naan massa fajul góom fajul jàngoro waaye wàññi na métit lu tax suñu autorités yi du ñu dem auprès de ces population comme si yi dañ leen bàyyi à leur propre sort te pourtant dañ leen war a assister devoir d' assistance dafa war am diggante état ak ñii di population yi ci Fass booy bokkul bokku nag yeneen yi nga xamante ne mooy Rufisque am na ci drame bi dafa dem ba code bi yëpp ñi fa dëkk am nañ ci ñi nga xamante ne ay victimes lañ peut-être Fass Boye moo ci mujj siiw ci mais ba léegi gaal yaa ngi dem bon saa ba léegi mënuñu stopper les mais problème où sont nos de renseignement marine nationale les gardes lan la ñuy def ba ba léegi gaal yi di dem mais nañu stoppé li nga xamante ne mooy départ yi et aussi population yi nga xam ni ay victimes lañ ci ñu assister leen xoolal Cheikh Mountakha li mu def muy jëkkati juróomi million jox ko askanu Fass Boye parce que xam na ne métit am na si dëkk ba est-ce que dégg nga loolu état def ko et pourtant loolu yëpp war na jóge ci état dem ci ñoom donc franchement état bi dafa bàyyee nit ñi seen jafe-jafe te loolu noonu mooy waral colère bi loolooy tax lu am lu ndaw rek ñëpp génn di taal di yàq di di di di. manifester leur colère parce que am na lu ñuy emmagasiner bu yàggee lu tuuti rek brin bu ndaw rek dafay indi ay flamme ci biir dëkk bi mhm. nañu assister les populations mhm. nañ am empathie envers ces populations yi nga xam ne bu ñuy liggéey pour ñoom ñoo tax ñu nekk fi c'est dommage euh, yaa ngi koy wax léegi euh, Ndeye faatu faatu ba tey jii dañoo nemmeeku ne amul dara loo xamante ne dafa tiital jeunes yi pour ñu bàyyi li leen di dem bi xoolal li xew ci Dakhla ak lu toll ci 325 ci ay sénégalais yoo xamante ne dañ leen fas yéene indi suba lañ fas yéene ñëw ba tey amul loo xamante ne dina leen tiital pour ñu bañ a dem. mooy situation bu metti bi ñu nekk c'est-à-dire que aujourd'hui lenn kese nga ci mën a wax muy. xale yi wax mënu leen a teree dem je parle des jeunes parce que li tax mooy euh, chaque jour ñoom ñu gis koo xam ne baasal nañu ko parce que dafa demoon ci géej gi ñëwul ay mbokkam di ko jooy ñu ngi koy tëjal li am face booy c'est tellement triste que boo koy sànni sa dafay daw et des parents même yoo xam ne dañ lay wax ne yëgoon nañu ne suñu doom dafay dem mais mënuñu ko woon tere mu dem donc mbir la boo xam ne ñun xam nañu cause bi mhm. xam nañu li ko waral xam nañu liy solution bi mais on croise les bras l'autre jour je disais que ne aujourd'hui c'est toute l'Afrique parce que bu ñu nee 1800 migrants ñàkk nañ seen bakkan maanaam double ñi faatu woon daaw ci waxtu wii ci diir bi entre mois d'avril ak mois d'août mhm. ren am nañu lu double ba ëppale ko et pourtant kenn réagirul boobu ba tey est-ce yow gis nga mhm. benn jéego boo santi ne def nañu ko au moins sax di nga ne en 2021 gisoon nañu ñu woote un conseil interministériel woote une réunion d'urgence sur la question parce que y avait 480 morts aujourd'hui bu ñu limee ñi ñàkk seen bakkan war nañu mën a ëpp 480 wala ñu jege ko même si on n'a pas les mhm. mais bu ñu la waxee li nga xam ne moom moo faatu fas booy ñi gisul seen ay mbokk ñi nga xam ne ba tey ñi ngi yaakaar te xam nañu ne peut-être dëgg la bu ñu dul nangu que ne ñoom ñàkk nañu doom wala ñàkk na lim boobu te jusqu'à présent est-ce que dégg nga benn réaction boo ko gisoo sax déplacement wu ay kàngam ñu dem wala bokk njaal moo xamante ne di nga sentir ne au moins def nañu ko comme ni ñu ko defoon cest dire que c'est comme si dañuy daw problème bi parce que amuñu ci solution wala bëgguñu ci am solution c'est malheureux pour ces jeunes yi nga xam ne mënoo leen wax dara parce que li tax mënoo leen wax dara mooy toog leen jàpp leen ci li nga nekk y a pas de sot métier am nañu réussir ci lu ndaw lu ñu jàppoon mais amaana sax ban ko waxee duñu ci mën a gëm li am moom mooy suñu kàngam yi nañu wut ay pexe par rapport à l'immigration clandestine Fatoumata hmm, jaajëf Fatou ñu daal di wàllu politique euh, ak ni ma leen ko waxee euh, si euh, bopp xibaar yi muy janook taskatu xibaar yi nga xamante ne ne député yi fare ci coalition benn ci coalition yeewi askan wi daal di nañ ko amal ni ki tey ji mu mel ni nag seen njiit la ba mu yëkkatee ay kàddu la mu wax bokk na ca nag ne ki le di Ousmane Sonko mooy doon seen candidat tey mooy doon seen candidat ëllëg ci élection présidentielle yu 2024 yooyee waaye tam nag la ñuy sàkku ñoom ñooñee sax bokk na ci élection yoo xamante ne du am benn parparloo ñu daal di fi jëlee jëwriñ bi ñu dénk wàllu euh, kaaraange biir réew mi ngir nag mu bañ a doon euh, ki nga xamante ne moom mooy organiser ay élections ñu teewlu ci Ahmed Aydara. essentiel bii di ñëw nag moom Macky Sall da koo war organiser nee na du dem waxoon naa leen ne renoncé na à la troisième candidature mais renoncé wul ci pouvoir ku renoncé ci pouvoir nag da nga koy jëfe di ko waxee waaye defu ko ba tax na fichier bi cartum réew mi ci boppam moom moo may ne. parti politique yi ak ñi nga xam ne dañoo jëm ci élection yépp dañ ko war a teg bët gis ko surveiller ko waaye tam kii organiser élection tu ne peux pas être jugé parti mënoo nekk ministre de l'intérieur bu bokk ak ñoom ba pare bëgg a organiser tamit ay élection ñu ne dañoo war a changer ministre intérieur indi fi nag une personne neutre bu di est-ce que Macky sax moom ànd naa koo xam ni neutre na wala koo xamante ni nii du dox ci waaw kon ministre de l'intérieur bii ñuy wax ne mooy organiser élection yi dañ ko fay war a jëlee indi koo xam ne day tëddee njaaxaanaay dañu desandi ba tey si seen janook taskatu xibaar yi ñoom tam daal dinaa yëy yaay bi ci li jëm ci wàllu détenu euh, yi euh, ci ñoom ñooñee nee nañ nag ñi nga xamante ne yóbbu nañ leen ci euh, l'hôpital lim gi toll na ci juróom fukk bokk na ci ki gën a fës ci ñuy woowee détenu politique di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag nee nañ autorité yi si boppam ñoom ñooy def li tax ñi leen di détenu yi di daal di def li leen di xiifal ci noonee nag fi mu toll nii lim gi gi jéggi na dayoo euh, junni ak juróom fukk benn fukk ak ñaar euh, ci ay détenus euh, politique nekk ci biir prison yi dafa metti ñu teewlu ci ba tey ki lay di ay dara ñi nga xam ne dañ leen a jàpp toll nañu ci junni ak juróom benn fukk ak benn la woon mille soixante nag yegg na ci junni ak juróom fukk ak ñaar te dara taxul ñu jàpp leen lu dul bokku ñoo gaa yi gis-gis di nguuru Macky Sall gi boo defee page Facebook ñu jël si la Instagram ñu jël si la nga wax ci rajo ñu jël si la nga wax tele ñu jël si la loolu mooy muut mbaa mot xool leen koom-koomu réew mi li doomu sénégalais di dugal fii ci biir réew mi okk nañ ci ñi téye réew mi économiquement ñoom waa diaspora boobu nga jël sa liste ñu déggu ne teg nañ ko ci aéroport international Blaise Diagne ay tur yoo xam ne dañ leen a bind nekku ñëw nañ la jàpp ci Ziguinchor foofu nag askan wa yeewoo foofu itam dañoo organiser ab marche bu yaatoo yaatu lañ ca doon di sàkk moom moo di rek ñu daal di bàyyi seen maire di Ousmane Sonko ci politique bi ba tey la ñuy wax ak coppite gi ñu nemmeeku ci biir calendrier bu jëm ci wàllub wutub parrainage bi mu mel ni date bu opération yooyu jëm ci présidentielle 2024 bi ñu fixé nañ ko ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août gi ñu nekk ci noonee itam. dañu ko daal di yóbbu ba ñaar fukki fan ak uh, juróom-ñaar ci weeru septembre gi ñu dëgmal coppita uh, coppite yooyu nga xamante ne nag uh, daal di nañu ko def li ko waral du leen lu dul li yees ci code électoral bi ci noonee nag bu ñu sukkandikoo ci expert électoral bi di Ndiaga la ñetti weer la collecte yi nekkoon maanaam candidat yi yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg nag fi ñu toll nii ñaari weer képp la ñu am ngir mën a def li leen di boobee parrainage ñu teewlu ci nanko baka yokk ak yaatal ñu waroon a tàmbalee wuti parrainage yi ñeel élection présidentielle yu 2024 yi ñi ngi ko jàppoon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août bi ñu nee code électoral bi laata ñu koy soppi li mu waxoon mooy ne caution bi ministre de l'intérieur war na ko fixé lu mu yées yées téeméer ak juróom-ñett fukki fan laata bisu élection présidentielle yi loolee di yamook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août bi ñu ne te fixation caution bi mooy doon itam ndorteelu utum parrainage bi ginnaaw bi ñu jëlee modèlu fiche yi ñu war a collecté parrainage yi bi waaye calendrier électoral bi yëpp mi ngi tënk woon ci code bu 2021 waaye ginnaaw coppite yi ñu indi ci article 29 bu constitution bi ak ci code électoral bi lépp soppeeku app yi itam dañu ko gën a gàttal bu ñu doyloo expert électoral bii di njaga silla la candidat déclaré yi nga xam ne ñetti weer la ñu amoon ngir wuti parrainage léegi si ñaari weer képp lañu am loolee waral ba ndorteelu wutum parrainage